salaamaaleykum nuyu ne leen ku ci nekk seen tur ak seen sant waaw comme d'habitude te képp koo xam ne nii abonné goo ci chaîne bi duñ def lu dul wax la nga abonné activé cloche bu ko defee benn suñu vidéo dootu la rawati surtout ngeen di liker di commenter que partager soirée Ligue tey bi résultat match yi nag moom lañ leen di indil gis nañ ne tey ji Chelsea bu Edouard Mendy ak Kalidou Koulibaly dañ doon football tey waaye mën naa ni suñu international sénégalais ñoom ñaar ñëpp kenn titulaire aussi Koulibaly ñu ngi doon doon annoncé ne dafa blessé ba tax tey bokkul woon ci groupe bi Edouard Mendy ci banc bi la nekkoon eh, Kepa moo titulaire Chelsea nag moo dóor 2 naan Salzbourg ancien club bu Sadio Mané nag eh, tey jii retrouvé na victoire eh, l'ancien joueur de Real de Madrid gis nañ ne ki ñu naan Isco tey dugal na bii bu rëy enroulé hors surface Séville dóor 3 gis nañ ne Benfica nag moom moo def surprise dóor 4 naan Juventus Turin tax club bu italien boobee toog ci Ligue des champions bi vraiment mu doon yoo xam ne nii euh, mën naa ni euh, jaaxal na euh, képp koo xam ne nii vraiment amateur de foot nga Celtic nag mën naa ni mook Shakhtar Donetsk dañoo nul ñoom ak Real de Madrid dañoo bokk benn benn poule gis nañ ne nag Dinamo Zagreb Milan moo ko fekk si dóor ko par la marque de 4 bi à 0 nag mën naa nañ ko xamee woon ci Ligue des champions des années avant jamono ji ñu ngi koy gisaat nànk-nànk nag mu ngi wane lu am solo ci Ligue des champions boobee Dortmund nag ak Manchester City mën naa ni dañoo nul 0 bi partout Alan dafa demoon fekk si ancien club am ci noonu nag jotut a dugal ñu ngi doon xaar lan la mënoon apporter Manchester City ak li mu waroon woon ki ñu naan Dortmund ancien club waaye finalement jotut a dugal la Leipzig nag bu Abdou Diallo moom tey nag ci match boobee nag la des wax ci sunu international sénégalais bi ñu naan Abdoulaye Seck nekk foofu ci club bi ñu naan Maccabi Haifa comme ak central jóge Antwerp dem foofu tey ji nag dafa doublé deux bii nga xam ne ay Maccabi Haifa dugal na ko yëpp moom moo Euh, peut-être vraiment mu doon match boo xam ne ni wara na ci boppam réduire na score bi waaye taxul vraiment PSG. wal na gan gi 7 buts à 2 début de Mbappé Messi et tout ça mu doon match boo xam ne nii daal PSG jaay na doole Maccabi Haifa dóor ko comme na ko wane woon bi retour bi naka noonu mën naa ni qualifié nañ directement euh, ci huitième de finale bi te it mën naa ni euh, P bi euh, kenn du ko xëccoog ñoom ñoom ñi di PSG Ablaye Seck moom ngeen di gis noonu ci bii bi nga xam ne jot na ko dugal ngir jàppale club am waaye finalement loolu doyul woon ngir war a mën a jàppale club am finalement gagné na leen ci njekk ak teranga gars yi loolu moo nekkoon xibaaru ngoon gi di leen xaar commentaire yi nan ngeen ko gisee ngeen ko ne di abonné ci chaîne bi activer ko mais surtout ngeen di liker di commenter que partager loolu ngeen ñu mën a soutenir bu baax a baax ba beneen yoon ci yeneen i xibaar